ginaaw yàlla hôpital bi tey bu fi amee jàpp naa bokk naa ci ñi ko xeex ak ñi tax mu am fi ndax bu ngeen fàttali ko projet la bu yàgg mi ngi amoon 2011 président Ablaye Wade moo amoon yéene def ko bi mu ñu recevoir ab audience la woon ñu xamal ko ne ko Touba amul hôpital de niveau maanaam niveau 3 boo xam ne état moo ko fa def bis boobu maa ngi fàttaliku président Wade daf ne nañu ma wool Modou Diagne Fada jamono jooju moo nekk ministre de la santé bi ñu koy jot mi ngi nekk dëkk bu ñuy wax Vindu ci Namibie mu ne ko dama bëgg nga defal ma étude pour que Touba ñu def fa hôpital bu mag boo xamee niveau 3 lay doon yàlla dogal 2011 la ci fin bi 2012 élection yi ñëw président Ablaye Wade wàcci président Macky Sall comme état continuité la président Macky Sall continuer pour def ko ci biir euh, hôpital boobu itam nun man xeex naa ci xeex bu rëy ndax bu leen fàttee ne hôpitalu Touba bii su dul woon nu na hôpital bi du gaaw ndax ay tappale da ci amoon ndax Serigne Sidi Muxtaar jamono ji mu nekkee xalif général des Mourides ci la ko tàmbali bi mu ko tàmbalee dafa waxoon ne dana ko defar ci loo xamante ne 18 mois lay doon ñu njëkk a indi assemblée nationale benn benn procédé boo xamante ne dañ cee defoon hôpital bi ñu génnee 16 milliards bi nu génnee 16 milliards yu njëkk yi ay nit ñoo ko séddoo lekk ko hôpital bi taxaw élection présidentielle di jub si ma def ma demandé def li nga xamante ne mooy li ñuy wax enquête parlementaire te enquête parlementaire bu amee danañu déglu képp koo xamante ne sa loxo laal na ci muy ministre muy directeur muy sëriñ ku mën a doon mu xam ne loolu day indi coow mu daal di gaaw dàq entrepreneur bi nga xamante ne moo waroon a tabax mi ngi tuddoon Olivier Picard ànd ko ak i sëriñ ànd ko ak ci ak i ministre ñu lekk 16 milliards. bi coow li naree am ñu jëm ci ay élection président Macky Sall daal di dagg contrat ba indiwaat beneen contrat daal di gëdd pour ñu defar hôpital bi ci nu mu gën a gaawee parce que xam na ni coow bi bu jógee annoncé wu ko ndax ci ay élection présidentielle kon hôpital boobu bu amee ginnaaw yàlla bokk nañ ci ni def pression ba hôpital boobu gaaw jaadu nañu leeral leen ndax bu noonu rek. hôpital bi léeb ak lippoon lay doon ndax li njëkk a génn di 16 milliards ay nit a ko séddoo te loolu commencé woon nañ ci def euh, enquête parlementaire ba jotoon nañ cee déglu ñu bari jot nañ cee déglu kilifa yi jot nañ cee déglu ministres yi ñu ci baree bari laaj nañ leen kenn ku ci nekk wax fam ca tool kon li may wax ci presse laa koy wax mu doon lu leer nañ kon ginnaaw yàlla tey bu ñu gaawee gëdd def ko xam nañ ne loolu fi mu jëm ci mbedd mi la jëm ca jëmee ci mbedd mi baaxul ci ñoom ñu profitoo gaaw def hôpital bi